Arfan Seck, inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville. Nous sommes à l'école Kabassal, quartier Ersan. Euh, nous avons constaté qu'il y a eu sens dessous, sens dessous. Qu'est-ce qui s'est passé réellement Comment appréciez-vous ce geste ou voilà, ces gestes Je dirais désolé et peut-être même euh, scandalisé. Et euh, vous le constaterez de vous-même quand un inspecteur de l'éducation dans une école des salles de classe Euh, défoncés, des armoires euh, vidées et donc euh, sens dessus, sens dessous. scandalisé mais serein. Serein parce que l'administration est en branle et l'administration est en de faire son travail. Nous avons saisi les autorités au plus haut niveau, euh, le préfet du département, l'inspecteur d'académie. Euh, tout à l'heure, la police était là pour mener des enquêtes. Et donc, euh, comme vous le constatez, la communauté est présente. la, le directeur, la directrice d'école, euh, l'équipe pédagogique, les parents d'élèves, le délégué de quartier. pour dire que l'école est un lieu de transmission du savoir, euh, à l'heure où les gens sont inquiets pour véritablement chercher à installer les bons comportements au niveau des citoyens. Et donc euh, en ce moment, une école victime de vandalisme, c'est un problème. Donc euh, nous lançons un appel à toute la population euh, la communauté pour véritablement continuer à prendre en charge les questions d'environnement scolaire pour nous aider à préserver l'espace scolaire, qui est un espace, comme je l'ai dit tantôt, de transmission des savoirs, un espace euh, pour lequel les élèves vivent en communauté avec euh, les enseignants, avec l'équipe pédagogique, pour euh, euh, pour que l'environnement scolaire soit préservé. Donc, euh, euh, en ce de confinement, nous pensons les gens maison. Ils ne doivent pas le temps véritablement d'aller dans les écoles pour commettre de tels actes. En ce moment où il y a 75 euh, testés comme si ce dernier ou ces derniers ne sont pas peut-être inquiété tout à fait. Que... Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, encore une fois, c'est un appel au de préserver l'espace scolaire. Nous vivons un moment euh, d'introspection, un moment de respect des consignes. Euh, respecter, mais faire respecter les consignes qui nous ont été édictées par les autorités de la santé, mais également les forces de l'ordre. Rester chez soi, rester le, respecter le confinement. Et voilà, en ce moment, on n'aura pas le temps d'aller pour commettre tels man maa ngi tudd Arfan Seck nekk inspecteur de l' éducation et la formation de Thiès ville euh, dañu am euh, véritablement lu ñu naxari ndax tey fii ci école Kabassal directrice daf ma woo ne ma mm, euh, dañu dajji classe yi juróom-ñetti salle de classe la ñu dajji dajji armoire yi sànni bagage yi si suuf laal tablement yi sànni jaxase kay tableau d'affichage et cetera donc loolu bu amee ñun daf ñuy naxari lool donc ñu informé woon sunu autorités yi mooy inspecteur d' académie préfet donc yebal nañ fi police mu def enquête communauté bi bi ñu ngi nii présente la mairie est présente euh, le délégué de quartier euh, la direction de l'école les enseignants donc di lancer un appel à la communauté ak dëkkandoo yi ñu jàppale lañu préserver espace scolaire ndax fii la ñuy wéyalee xam-xam yi d'ailleurs ñun sax dañuy jaaxle ndax fi nga xamante ne autorité dañ ne toog leen seen kër toog leen ngeen moytu donc toog leen ngeen moytu ñu ñëw fii tey ñii mu am ñoo xam ne am nañ jotu dem tàjji école yi vraiment daf ñuy jaaxal dafa mel ni ñooñu yéeguñ li xew wala dañu faalewul li ñu wax donc encore une fois ñu ngi lancer un appel à tout le monde ñu jàppale ñu ci ndax fii la ñuy joxee xam-xam fii bu fekkee dañu bëgg a defar jikko yi fii lañ koy tàmbale donc fii nañ ko defar nañ ko sàmm donc ñu ngi gërëm les autorités académiques les autorités territoriales les autorités administratives parce que tey fii tey monsieur le maire euh, à travers son SM ak son ñëw nañ joxe nañ ndigal ne nañu wut gardien tey tey mu fanaan fii jàppale ñu donc police également ñëw na pour euh, mener enquête bi délégué de quartier mu ngi fii comme ni mu ko waxee parents d'élèves yi ñëpp a ngi fii vraiment ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñaan encore askan wi ñu jàppale ñu jàppale ñu ñu préserver ko di wax ne nag euh, li ñu fi gis tey naxari nañu trop ndax jàngalekat moom bu bu ñàkkee livre tey damay tàmm di tooñ sama mbokku pël yi dafay mel ni pël bu ñàkk nagam quoi jàngalekat moom bu ñàkkee livre rek mel na ni pël bu ñàkk nag donc dëgg-dëgg yàlla nañu yàlla jàppale musal ñu ci musiba bi euh, te lii gëj fi am quoi li nga xamante ne nag mooy mbas bi nga xamante ne dañ koy dund ñu ngi koy ñu ngi wax toujours nañu moytu di moytuwaale di di digal di digalaate nañu toog ci kër yi respecter consignes bañ génn guddi respecté couvre-feu bi garder distance yi comme ni ñu ko defee tey nii gis ngeen ko euh, yàlla nañu yàlla jàppale. c'est madame Thiam Yacine Keita. Oui, aujourd'hui votre école, l'école dirigée euh, a été euh, entre guillemets euh, qu'est-ce que vous pouvez nous des enseignants peut-être bastonnent certains élèves? Un parent fâché veut peut-être euh... se venger, entre guillemets Y a-t-il de l'argent dans les caisses de l'école Comment appréciez-vous ce, ce, non, je ne pense pas que c'est parce que des gosses ont été punis que cet acte de vandalisme a, euh, eu lieu à l'école. Parce que vraiment, nos enseignants respectent ce que le règlement intérieur nous demande, c'est-à-dire le châtiment corporel. Actuellement, ici à l'école, des fois même je, je dis au maître que c'est parce que vous ne bastonnez pas que quoi. je pense que c'est pas à cause de ça que ça a aussi, Dans les classes, on ne garde pas d'argent, sincèrement. Au niveau de l'administration, peut-être euh. aussi, c'est moi qui la directrice, mais je ne garde pas d'argent dans le bureau, sincèrement. <laughs> Ah, pour le moment, seuls les titulaires de classe peuvent nous édifier. Seuls les titulaires de classe peuvent nous édifier. plus que c'est hier, euh, vers les environs de 18 h 30 qu'un de mes adjoints m'a appelé au téléphone. Ensuite, j'ai appelé Moussa Sow, le maître du CM2, pour qu'on vienne faire le constat. Parce que c'est les voisins qui se sont rendus compte que le robinet a été défoncé. Et pourtant, avant qu'on aille euh, pour les vacances la on avait cherché un cadenas pour les robinets. Mais c'est après que, que les voisins nous ont appelés pour nous dire qu'on a défoncé le robinet. c'est lorsque nous sommes venus à l'école que nous avons constaté que huit de nos classes ont été défoncées. Et vraiment, c'est du vrai vandalisme. On a trouvé que tout a été vandalisé, sincèrement. l'association des parents d'élèves ne euh, parce qu'un un établissement sans, gardien. Ah. Ah, vraiment, pour le moment, nous n'avons pas de gardien, sincèrement. Actuellement, nous n'avons pas de gardien. Le, euh, vraiment, l'association des parents de fait bien son travail, très sincèrement, parce à chaque fois, il est à l'école pour faire. Mais vous savez qu'actuellement, dans les écoles, il n'y a pas d'argent. Parce que c'est la coopérative qui fait marcher l'école. Ici, à Kabassal, bien qu'on a plus de mille et quelques élèves, euh, on n'a que, si je vous n'a pas euh, ramassé la moitié de la coopérative, vous allez me dire que ce pas vrai. Et eh, c'est ça qui nous aide. la, la, coopérative qui aide les écoles actuellement. Parce que la mairie ne fait que ce qu'il peut. Vous avez combien de classes physiques Nous avons 13 classes. Euh, actuellement, nous sommes au nombre de 18. Pour, un ouais, de pour 1000, euh, 1300, euh, 1310. Nous avons 1310 élèves. Merci. C'est voilà. waaw euh, sànq yaa ngi laaj naan ma ndax ndax yi moom moo tax peut-être ba élèves yi ñëw mer euh, pour ñëw def si vandalisme bi mais man la déedéet parce que wax dëgg yàlla samay jàngalekat moom ñu ngi respecté moom châtiment corporel bi ñu leen ne c'est formellement interdit à l'école des fois sax damay xuloog ñoom naan leen c'est parce que du ngeen dóor moom moo tax ba xale yi duñu jàng seen leçon ndax des fois da ngay gis dañuy def essai dañuy am résultat yu baax ci essai yi mais man leen leen bu fekkoon ne tey ji jàppoon nañu élève teg leen table xaw leen a tuuti ba ñu jàng seen leçon yi ñu am dinañ am yu pour vous dire que jeune pense pas que c'est parce que dañoo dóor ab élève ba moo tax peut-être acte de vandalisme bi am yaakaaruma lool. Euh, kuy ut xaalis tamit boo fi ñëw doo fekk ndax amu fi <laughs> fii moom xaalis amu fi moom sincèrement fii moom xaalis amu fi ndax damaa xam ne école coopérative moo koy doxal te bu ma la euh, ñu treize classes la ñu am plus de mille trois cent dix élèves te yàlla xam na ko ne li fi dugg ci élèves école bi bu bu matee deux cent mille ci la pour vous dire que coopérative bi dox fi te loolu moom mooy doxal élève e, école du mais wax dëgg yàlla association parents d'élèves moom mu ngi doxal dooram comme il faut ndax à chaque fois mu ngi ñëw di sensibiliser élèves yi pour affaire coopérative yi mais presque peu d'élèves ñooy joxe te actuellement loolooy doxal école maire bi moom tamit ah mu ngi def li mu mën mais tamit fi fi dooleem yem rek euh, euh, fa la fa la mën a yem amoon nañu gardien ga mais après finalement dañoo mujj kii ko est-ce que jot ngeen a xayma li ñu xam ndax il faut titulaire classe yi ñoom ñoo mën a ñëw wax ku ci nekk sa classe li fi mais pour le moment moom mënuñoo xam ne ndax d'autant plus que ñoom ñëpp ñu seen kër yi ñi dañoo voyager loin de Thiès te actuellement woo naa leen téléphone mais mënuñoo ñëw avec confinement bi. d'accord merci je voudrais avant tout en ces moments de peur et de peine prier le bon de garder le Sénégal dans sa garde sûre. Face à cette situation intrigante, je pense que nous avons besoin de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi je demande à l'ensemble des citoyens de formuler des prières, chacun à ce qui le concerne, pour que cette pandémie puisse quitter le plus rapidement possible le Sénégal et qu'on puisse le bouter dehors, hors de nos frontières. Je profite de la même occasion pour lancer un appel à toute la population à restaurer la discipline au sein des familles, dans le quartier et partout. Parce que ce que nous vivons actuellement n'est pas de la citoyenneté. Et comment appréciez-vous euh, situation d'aujourd'hui Avec. Euh, donc, moi, je m'appelle Maguessar, je suis cinquième adjoint au maire. Je suis venu représenter le maire qui est parti à Dakar pour les besoins du combat que nous menons contre le grand ennemi, coronavirus. Il est parti enlever du matériel. Donc voilà, nous sommes venus voir de visu ce qui s'est passé dans l'établissement Cabossal de Herson. Nous sommes scandalisés, nous sommes désolés face à cette situation. Au moment où on demande à chacun, à tous les responsables, au chefs de famille, de maintenir, de retenir les membres de leur foyer à la maison, voilà des actes qui se sont produits à l'école Cabossal. C'est désolant et ça nous intrigue parce que cela prouve simplement que les gens ne respectent pas l'autorité. La, Il est demandé à tout un chacun d'éviter de sortir, de rester chez soi. Mais voilà, des actes qui prouvent qu'il n'y a pas de discipline dans le pays. Et avec ça, on ne peut pas avancer, on ne peut pas se développer. Donc, c'est désolant parce que peut-être la municipalité, municipalité n'aura pas, n'a pas fait ce qu'il devait faire, trouver un gardien pour. Un, un je suis à mes côtés l'inspecteur et la directrice de l'école. Il nous l'a dit tout à l'heure. La municipalité fait tout pour que l'éducation aille de l'avant. Nous donnons tout ce que nous pouvons faire aux directeurs, aux enseignants. Non seulement nous, nous donnons, mais nous conseillons et nous encourageons. la mort Non du tout. Parce que à chaque ouverture de, classe, nous donnons des fournitures, appuyer en matériel scolaire. Qu'est-ce que Bon, face à cette situation, nous allons nous réunir et voir avec le maire, puisqu'il est en déplacement, voir ce qu'il faudra faire. Et Dardar, comme l'a indiqué le secrétaire général, monsieur Gay, nous allons commanditer tout de suite un gardien pour qu'il puisse passer la nuit en attendant de voir ce qu'il faudra faire en urgence pour venir au secours non pas l'école Kabassal mais pour les autres écoles de la commune incha allah. gis-gis bi tey lan la. ah gis-gisu tey bi moom mooy méttitu xol parce que tey jii fi Sénégal tool fi àdduna bi tool nga xam ne ñëpp ngi xeex pour lu fi jëlee jàngoro ji ñëpp ngi xeex pour ñu mën a toog ci kër yi pour mën a téye suñu bopp pour que feebar bi mën fi gaaw jóge ay nit di jóg di dugg ci école di def ay actes yu mel nii wax dëgg yàlla loolu jur na méttitu xol. ñu ngi ñaan nag ci occasion boobu non seulement nit ñi dellusiwaat ci ñoom mais dellusiwaat ci yàlla ñuy ñaan di moytu di déglu ndigal yi di ko appliquer waaye lii fi xew tey jii wane na ni nit ñi amul ñu discipline te loolu moom benn état mënu koo régler na ko chef de famille yi régler ci seen i kër ñu jàppalante pour que lii mën fee jógee waaye lii xew ci école bi boo duggee ci classe yi da ngay am lu la metti kaye ñu xotti sànni table banc yi ñu toj ay armoire yu ñu dajji donc xam nga ni loolu rafetul ci moment bi nga xam ni ñu ngi am leneen beneen xeex bu ñu war a xeex bu dul loolu. est-ce que taxawaayu conseil municipal bi moo ci des jëm ci wàllu conseil municipal bi ak maire bi ak bureau municipal bi chaque année li ñuy njëkk def mooy nu ñuy jàppale école yi mooy suñu priorité l'éducation et la santé l'environnement entre autres donc tey jii wax dëgg yàlla euh, inspecteur mën nañu seede directrice bi mën nañu seede. délégué de quartier bi quartier bi aussi xam nañ ñu ngi jàpp ci école yi ñu ngi ci def suñu kartalaay suñu kemtalaay karta lan mooy li ngeen war a li ñu war a def nag face à une situation urgente il faut des mesures urgentes léegi nag jéem a xool nu ñuy taxawoo école yi ba lu mel nii deetu fi am loolu nag bu meer bi dikkee incha allah li muy njëkk def bu dégloo secrétaire général dina ci def ay application ba ñu mën a génn ci situation non yaakaar naa ne incha allah avec le délégué de nañoo mën a am gardien bu fanaan si tey incha allah Euh, je m'appelle Ndiaye, Mamadou Mar Ndiaye. Je suis le délégué de quartier de R101. Voilà, dans votre quartier aujourd'hui, euh, on vous a appelé pour venir euh, voir de visu euh, des classes, qui ont été en tout cas voilà, vandalisées, des armoires, des tables bancs cassées, Euh, même des feuilles de euh, composition un peu jetées euh, à tort et à travers. Quelle appréciation faites-vous en tant que délégué de quartier Je voudrais d'abord remercier les autorités de la promptitude de leur réaction. Dès qu'ils ont été appelés, ils ont réagi très et ils sont venus sur les lieux constater les dégâts qu'il y a. Nous déplorons très vivement. Et véritablement avec une pointe d'amertume, ce qui s'est passé dans cette école Kabassal. Il y a quelques années, l'école était pratiquement tombée en désuétude. Euh, les populations sont mobilisées. Moi, délégué de quartier, avec le comité de gestion de l'école, on s'est mobilisé autour du directeur, le nouveau directeur, qui est parti malheureusement à la retraite. Et nous avons pu faire le travail que vous constatez actuellement. L'école actuellement, dehors, est véritablement très accueillante. Et c'est le labeur conjugué du comité de gestion, de l'administration de l'école et des parents d'élèves qui a produit le fruit que vous constatez actuellement. Euh, donc j'appelle encore une fois les populations à se mobiliser en accord avec les autorités pour refaire ce qui a été détruit. Ce qui a été détruit par des vandales que nous déplorons beaucoup. Cela nous fait mal. On voudrait donc, avec euh, le concours des autorités municipales, administratives et le comité de gestion, revenir à l'école et reconstruire ce détruit. si wolof waaw. man maa ngi tudd Mamadou Mar Ndiaye man maay délégué de quartier R100 euh, li fi xew tey ci école bi autorité wax nañ ko mu doon loo xam ne lu doy waar la lu métti ci xol ñoom autorité nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax seen gaawa a wuy si woote bi ñu leen woo inspecteur kenn jëkku ko fi monsieur le maire ñëw na ànd ak le secrétaire municipal. Euh, le président des parents d'élèves fi laa ko fekk directrice ñëw na kon administration école bi yëpp daje na fii pour constater li nga xam ne moom la fi xale yi def entre entre guillemets je dis xale kenn xamagul kan la l' enquête ñu ko mën a moo ñu mën a wax nar a wax kan moo def lii waaye ki ko def def na loo xam ne lu ñaaw la lu metti ci xol la parce que école bi na meloon ci at yële passé ak ni mu mel léegi bi ñu ko defaraatee ci dëgg-dëgg yàq fi lii ñu fi yàq tey ji kooku dafay mel ne sabotage la. kon nag ñun loolu métti na ci suñu xol naqari nañu trop waaw ñu ngi ñaan yàlla population yi nañu nañu àndaat ak autorités yi administrative ak municipale ñu ànd ak comité de gestion école bi ak directeur bi directrice bi pour ñu defaraat li nga xam ne moom lañu fi defaroon ndax école bi fi mu nekk nii neex naa xool lool waaye bu duggee ci classe sa xool day jeex tànn nañu armoire yi dama nañ ay table san nañ yàq nañ kaye xale yi loolu naqari na trop ci xol d'accord merci beaucoup merci je voudrais qu'on ait une pensée pieuse pour le directeur Dramé, qui nous a quittés au mois de janvier. Donc nous, ce que nous sommes en train de faire, nous allons le faire par devoir, parce que c'est notre travail. Mais nous allons le faire plus pour le, pour, pour le repos de l'âme de Dramé. Parce que là où il se trouve, je suis sûr qu'il peut être aujourd'hui dérangé, parce que c'était son école. yàlla na suuf sedd ci kaw loolu laa bëggoon ñu ngi koy ñaan Mangom Ndiaye, président appuyé de Kabassal. Je lance un appel solennel aux populations de Ersan. École Kabassal, c'est l'école de, de toute la population de Ersan. Chaque habitant doit être un gardien à l'école Kabassal. C'est pas c'est notre école. C'est pas l'école de Tahikaw ni Randoulène ni sommes, c'est notre école, personnellement c'est notre école. Nous voulons que cette école aille de l'avant, aille de l'avant, fait partie des meilleures écoles, les meilleures écoles de, de Ça s'est passé combien de fois durant que vous êtes euh, la deuxième se produit ici à l'école Kabassal. Donc, ça, vraiment, je, peux dire que c'est du sabotage. Si c'était euh, la première fois, je dirais que voilà, on peut quand même tolérer ça. Mais maintenant, c'est la deuxième fois que, que ça se produit. Donc, on doit sensibiliser. Durant la première fois, qu'est-ce qui s'est passé ils ont, fait la même chose Ils, ils ont, ont la... la... même chose, puisque ils ont, ils ont, ils ont, ils ont démonté, euh, euh, euh ils ont cassé les tables bas, renversé les, les, armoires, prendre les livres. mais Cette fois-ci, on a fait presque la même chose. on a fait la même, la même chose.